أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yenentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ñoo ngi ànd ak yéen ci kitaabu tawxid ba tey nu toll ci ñeenteelu dars ci baabu ma jaa fi riya mu ne hadis bi ñuy jël tey mooy hadisu abi said mu nekk marfu yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne ala uxbirukum bima huwa axwafu alaykum indi min almasihi addajjali qaalu bala qaala alshirku alxafiy yaquumu alrajul fa yusalli fa yuzayinu salaatahu lima yara min nazri alrajul rawahu ahmed inti yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam xabaar nanu ci hadis boo xam ne abi said moonu ko jottali mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ala uxbirukum ndax duma leen xabaar ndax duma leen wax ndax duma leen jàngal ndax duma leen xamal ndax duma leen leeralal ku tol ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu laajee sahaaba yi ne leen ndax duma leen xabaar bi ma huwa axwafu aleykum ci li nga xam ne moom laa gën a ragal ci yéen am na mbir yu bari yu ma ragal ci yéen waaye am na ci boo xam ne moom laa gën a ragal ci yéen indi min al masihi dajjal xool leen masihi dajjal nu mu garaawee nu mu doyewaar ba ñuy jàngale ay aaya ci alquran di jàngale ab ñaan ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ku ko wax yàlla musal la ci dajjal li dajjal di doy waareek yonent bi nee ne li ma gën a tiit ci yéen nga xam ne moom moo gën a garaaw dajjal ndax duma leen ko wax sahaaba yi qaalu bala a kay yow yonent bi wax nu ko kay qaala ashirkul xafi mu ne mooy bokkaale yàlla bu ndaw bokkaale yàlla bu nëbb ashirkul xafi bokkaale bu nëpp lu muy demee mu ne yaquumu rajulu nit dana jóg fa yusalli di julli fa yuzayinu salaatahu waa ji jóg di julli julli goo xam ne julli gu taaru la julli gu rafet la julli gu julli gu lan moo tax waa ji taaral jullim lu tax waa ji jéem a sàkku dal lu tax waa ji neexal baat lu tax waa ji yàggal rukoo yi lu tax waa ji yàggal sujóot yi lu tax waa ji ànd ak dal du leen lu dul lima yara min nazir rajul du leen lu dul dafa am rek benn waay bu koy xool mu bëgg a won kooku ne man mën naa julli rek moo tax mu julli julli gu rafet gi dafa am kenn ku koy xool am kenn koo xam ne bàyyi na ko xel bi mu yëgee ne am na kenn ku ko bàyyi xel rek moom waa ji nan la def dafa julli julli gu dal julli julli gu rafet julli julli goo xam ne ku ko gis danaan lii julli gu baax la kon gis ngeen bokkaale gu ndaw bokkaale bu nëbbu bu kenn yaakaar ne mooy dem takk téere nëbbu ko wala takk gàllaaj nëbbu ko wala dem ci xërëm yi nëbbatu déedéet ndeke yow da ngaa dem di jaamu ji yàlla waaye ba nga demee di jaamu ji yàlla yàlla kese kese kese dafa taxul ngay def mbir mi dafa am lu tax lu la animé ba lii nga def nga def ko ca defin bu gën wala wala wala beneen bi mooy hadis ibnu huzayma fi sahih an mahmud ibnu labid qala xaraja rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa qala ayuha nnas iyakum wa shirku sharairi qalu ya rasulallah wa ma shirku sharair قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الرجل إليه dalika shirku sorair mbokk yi beneen hadis bi ci tegu mooy hadis bi ñu ibnu huzayma nettali nga xam ne ñu ngi ko jëlee ci mahmud ibnu labid mu ne benn bis xaraja rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi génn na jëm ca nit ña ba mu yeggee fa qaala ya ayuha nnaas mu ne ee yéen nit ñi iyaakum wattandiku leen wa sirka sarair watte mooy tandiku leen bokkaale goo xam ne mooy nëbbu sekkere yi waaw mooy feeñal mbir yi qaalu ya rasulallah sahaaba yi ne ko wa ma sirku sarair ayo yenent lan mooy bokkaale sekkere yi qaala yaqumu rajul mu ne benn waay day jóg fa yusalli dara taxu koo jóg lu dul julli fa yuzayinu salaatahu mu dafar julleem taaral ko xeex ci bu baax jaahidan lu tax dafa xeex sonn ci julli yi ngir julli gi yu baax lu tax lima yara min nazir rajuli lay ndax dafa gis kenn di ko xool rek gis ku ko bàyyi xel gis ay nit di ko xool mu bugg leen won ne man mën naa julli man nangam laa man nangam laa ndeysaan moo tax mu sonn ci defar julli googu mu yonent bi ne fa zalika sirku sarair loolu mooy bokkaaley sekkere yi kon a sirkul xafi bokkaale gu nëbbu samaahu xafiyan tuddee na ko bokkaale gu nëbb li anna saahibuhu yuzhiru anna amalahu lillah bokkaale gu nëbb la lu tax ndax boroom ki koy def la mu wone ca biti mooy jëf ji may jëf ku tax ma koy def yàlla lii may def yàlla tax waaye waqat qasada gayruhu li mu ci jublu mooy keneen ku dul yàlla waa ji di julli taaral julli ji wala kii di saraxe wala kii di jàng alquran wala kii di jéem a def lu baax bi mu jógee di def lu baax loolu mu ne naa ko def ndax nit ñi ne maa ngi def lu baax kooku léegi lu tax muy def lu baax li yàlla taxatul moo tax mu ne dafa jóg li tax ñu tuddee ko bokkaale gu nëbb ndax ki koy def dafa feeñal jëfam ne yàlla laa koy defal waaye dëgg-dëgg ci biir keneen ku dul yàlla moo ci rax aw sharakahu fiihi wala bokkaale na ko ci ba mu jógee sax yàlla taxoon waaye ba mu demee ba ci biir mu assuyi ci keneen daal ci dugal keneen waa jooju di ko xool taxu ko woon jóg waa jooju mu bàyyi xel taxu ko woon jóg waaye dafa dem ba ci digg bi rek mu ne xaaral ma def ndax te jamono jooju nag taaral na julli gi ndax keneen kon léegi yàlla moom bokkaale na yàlla wala boole na yàlla ak keneen ci jëf yi muy jëfal yàlla mu ne jëlee nañ ci saddaad ibnu aws saddaad mooy ni ñu nettali mu ne qaala mu ne kunna na uddu riya ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam asirka asgar sa daan nee na ci jamono yonent bi ñun de doon nañu lim doon nañu boole ca jamono yonent bi ngistal mooy bokkaale bu ndaw ca jamono yonent bi ne ñun loolu lañu doon wax ku ñu laajoon nañu lan mooy ngistal ñu ne mooy bokkaale bu ndaw waaw ci jamono yonent bi ñun loolu lañu doon wax nee na xadis boobu rawahu ibnu abi dunia fi kitaabil ixlaas soo demee ci téere bu tudd kitaabul ixlaas di nga fa fekk xadis bi saddaat nettali ne kunna nauddu arriya ala ahdi rasulillahi ashirk al asgar waaye boo demee aussi ci ibnu ibnul jarir ci téere mu tudd tahzib ak tabarani wal xaakim imam xaakim sax moom wéral na xadis bi wa saxahahu sëriñ bu tudd ibnul qayim nee na amma sirkul asgar bu dee bokkaale yàlla bu ndaw fa yuksiru riya wa tasannu lil maxluuq wal xalf bi gayrillah bu nu bëggee xam mbir yoo xam ne boroom xam-xam yi dañ koo lim boole ko ci bokkaale bu ndaw yenn yaa ngi nii mooy def benn jëf feeñal ci yàlla nga koy yubal waaye keneen nga ci jublu loolu ci bokkaale bu ndaw la bokk wala nga def dara fekk mbindeef yee tax wala ngay waat ci kudul yàlla mu ne mu ngi mel ne wa qawli rajuli li rajul nit wax nit wax nit moroomam ma sha allah wa shi'ta bu neexee yàlla ak yow loolu bokkaale bu ndaw la bu neexee yàlla ak yow ñaari mbir moo fa nekk su neexee yàlla ak yow mooy day neex yàlla neex la mbir mi dooga am kon su neexee yàlla kese kese kese te neexul waa ji du am kon ñoom ñaar ñëpp foog ñu am ci kenn ku nekk ku mu neex ba pare mbir mi dooga am loolu la ñuy wax coobarewu loolu yàllaa ko moom kenn du wax bu neexee yàlla ak déedéet bu neexee yàlla kese amul kenn koo xam ne ci ndogali yàlla ki mbiram ak ki jëfam am na lu la ciy neex wala lu la ciy naqari ba mbir mi am wala mu bañ a am mbokk yi bu fekkoon ne am na koo xam ne su ko mbir mi dara neexee mu am kan mooy bàyyi baayam dee kan la fi nekk ñun ñu toog nii ku baayam dee mu neex ko nit ñi nekk fi kan la fi yaayam dee mu neex ko kan la fi doomam dee mu neex ko kan la fi mbokkam dee mu neex ko kenn su fekkoon ne mbir mi bu la neexee rek day am ah kon ndeysaan li yonent bi doon wax qul law kuntu aalamu lxayba lastaksartu min alxayri wa ma massaniya suu su fekkoon ne xam naa suba luy ñëw kon lu baax rek laay am du ma musa am lu bon waaw lu neex rek moo may dal su ma xamoon lii ñëw lan la ah kon sëñ bi lu bon du dal sama kaw kon lu neex rek moom moom mooy programme bu neex rek waaye nag xaw ma suba luy ñëw gis nga yonent alquran loolu la wax kon bokkaale mooy nga ni su neexee yàlla ak wala nga ni wa hada min allahi wa minka lii kat ci yàlla la bàyyi ko ak ci yow wala musiba la wa hada lii min allahi ci yàlla la bàyyee ko wa minka ak ci yow mii la bàyyee ko déedéet amul lenn loo xam ne ci ndogali yàlla ki coobareem ak ki jëfam ak ay namm-nam ak ay bëgg-bëggam amu ci lenn luy bàyyeekoo ci moom ak keneen déedéet moom kenn kot maa yaftahu llahu linnaasi min rahma fala mumsika su ma ubbalee nit ñi yërmande kenn mënu ko teye waaye wa maa yumsik fala mursila su ma ko nee nuuj teye kenn mënu koo indi waaw yaa kon nag mu ngoog wa ana billahi wa bika gis nga wala nga ni wa ana billahi wa bika wala nga ne wa maali illa illa allah wa ant sama alal ji yaag yàlla rek yéen a ci am dara bul boole yàlla ak kenn yàlla rek waaw yàlla kese ko moom wala nga ne wa ana mutawakkilun ala allahi wa aleyk man de wàkkilu naa ci yàlla ak yow loolu lu koy dégg tey ci dëkk bi du jeex waaw waaw yenn saa yi sax nga dégg am na ñoo xam ne ñoom wax dëgg yàlla ñii sax ñoom tane nañ ndax ñii dinañu jëkkee yàlla teg keneen waaye am na ñoo xam ne moom programme yàlla sax moom amu ci yow rek bu la neexee yaay na am mu am wala dénk naa la sama bopp jox naa la sama bopp wàkkirlu naa ci yow yooyu ay baat la yoo xam ne yooyu moom dootul nekk bokkaale bu ndaw waaye bokkaale bu mag la mooy shirkul akbar yàlla nañ ci yàlla musal ab jullit du wax moroomam jullitam wala moroomam mbindeefam ana mutawakkilun ala allahi wa alayka wakkirlu naa ci yàlla ak yow alquran def ne wa ala allahi falyatawakkalil mutawakkiluun ci yàlla rek rek rek rek wallahi la wax waxul keneen falyatawakkalil muta ñii wakkirlu nan wakkirlu ci yàlla mu ne wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasbu ku wakkirlu ci yàlla yàlla doy la waaw ku jàpp ci yàlla yàlla doy la kon mbokki jullit yi wala nga ne walawla allah wa anta su neexee yàlla ak yow lam yakun kaza wa kaza su neexee yàlla ak yow mbir mi rek mooy am wala du am abadan loolu du wax ju jub du waxu pas-pas du waxu borom aqida du wax ju wér su neexee yàlla rek wala wala allah bu doon di yàlla anta amu fa place bu neexoon yàlla ak yow mbir mii du am wala day am déedéet yàlla subhanahu wa taala mooy borom na am mu am mooy wax na am mu am su waxee du am du am te yàlla programme am kenn mënu ko téye yàlla bu xasee programme bu dogal yi tàbbee kenn mënatu ci dërëm day dal waaw dogalam bu ko téye it kenn mënu koo indi mu ngoog loolu dafa war a leer ci ñun mu ne waqad yakunu hada shirkan akbar gis nga liñ doon wax sànq am na yenn yoo xam ne du nekk sax bokkaale bu ndaw waaye ci bokkaale bu mag lay nekk mooy lan jox naa la sama bopp dénk naa la sama bopp jébbulu naa ci yow yow su la neexee mu am yow bu la neexul du am yooyu moom nekkul bokkaale bu ndaw waaye bu mag la ndax da ngaa bàyyi yàlla def direct ci mbindiif soo ci boolee yàlla nag mu nekk bu ndaw bokkaale nga waaye def nga bu ndaw boo ci génnee yàlla nag def nga bu mag bi te bu mag bi yàlla du ko baale moom ngeen di dégg yàlla naan innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna wa ma'waahu nnaar wa ma lizalimina min ansaar képp ku bokkaale yàlla yàlla mu ne yow pare nga mu ngoog mu ne bi xasbi xaali qaa'ilihi wa qasdihi mbir yépp ci ñaar yooyu ñu wax bokkaale bu mag beeg bu ndaw bi ña nga leen di ràññee kem ak la tolloog waxi waaja wala pas la mu jublu pour ñu xam ne kii bokkaale bu ndaw la def wala bokkaale bu mag la def ma nga tolloog kemuk waaja la mu def la mu ci jublu fekkee yow danga jublu boole yàlla ak keneen nga tudd yàlla tudd waaji dugg nga ci sirkul xafi su fekkee nag waa ji rek nga ci jublu génne nga ci yàlla duglu nga ci sirkul akbar mooy bokkaale bu mag mu ne wala xilaaf sikk nekku ci ne an al ixlaas chartun li sixati al amal wa qubulihi sellal def mbir mi ngir yàlla jëf ji ngay jëf nga jublu ci yàlla kese yàlla rek rek rek rek rek rek rek tax laa jóg loolu sart la mbokk yi ci li wéral jëf ak li tax yàlla nangu ko kenn ci ñun su fekkee jaamu gi muy jaamu yàlla dafa bëgg mu wér benn ñaareel nga bëgg yàlla nangu ko sart bi mooy foog nga sellal nga def ko ngir yàlla ndax sart la ci wa kazalik al mutaabaa waaye bokk na ci aussi li tax mbir moomu yàlla di ko nangu li tax mu wér mooy nga topp ko nga toppandoo ko yonent bi nga toppandoo ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaari sart yi ba ci ñetti sart ba ci ñeenti sart mooy sart yi yàlla di nangoo jëf kenn ci ñun jëfam yi muy jëf jaamu yàlla yi muy jaamu yàlla julli koor azaka jàng alquran tudd yàlla ak yeneen ak yeneen yi ci aju tudd jaamu yàlla sart yi tax yàlla di ko nangu fokk mu dëppoog lii bu njëkk mooy ixlaas na yàlla rek tax ñaareel mu taabaa na nga ko toppandoo yonent bi yonent bi bu la wanee ne mbir mi nii lañ koy defee nga bàyyi mbir moom dem def ko ni ko keneen defee kenn du la ko nangul te nag loolu sax mooy lu wér nag loolooy li jaadu ndax buur bu tol ne yàlla sàkk ay jaamam yónni am ndawam ne ko demal nga wanal ma nit ñi niñ may jaamoo ndaw loolu ñëw jàngale jaamu yàlla gi ba mu jeex dem yow mii di jaamu yàlla nga ne jaamu yàlla gi yonent bi jàngale nii de am na keneen ku ko gën a mën man kooku laa koy jëlee yàlla du jël sa bos loolu tax ci alquran am na aaya yoo xam ne ab jullit daf ko war a bàyyi xel mooy wa ma ataakum rasul fa xuzu wa ma nahaakum anhu fantahu lu leen yonent bi indil jël leen lu mu leen tere bàyyi leen aaya yi mel ne atiullah wa atiu rasul topp leen yàlla topp yonent kenn xamul dem barke am na semaine bi benn mbokk bu laaj aay yi nekk ci alquran atiullah wa atiu rasul ñaata la baax na xam ko lool waaye jëfe ko mu ëpp importance topp yàlla topp yonentam beneen bi mooy ñetteelu sart ginnaaw ba nga ko sellalee toppandoo ko yonent bi ni mu ko doon defee nga defee ko noonu ñetteel bi mooy boo koy def na nga ko def ci waxtoom bépp jaamu yàlla bu jot ci waxtoom nga ko war a def kenn du anticiper kenn du hmm? waaw anticiper jaamu yàlla ah man ne xam naa ne léegi weeru koor gi ñëw xaar ma woor léegi rek bu weeru koor gi jotee ma ne gars yi wooroon naa ba pare ma anticiper ko mukk añ màkka dafay bëri nit xaaral ma aji ñëwaat déedéet waxtu wu ko yonent bi waxe defee woon foofu nga koy defee na mu ko defee woon noonu nga koy defee loolu mbokk yi lu jar a bàyyi xel la bu baax a baax a baax a baax sëriñ buy naan fudayl ibnu iyad rahimahullah taala nee na ci wax ji yàlla naan la yabluwannakum ayukum ahsanu li yabluwakum ayukum ahsanu amala yàlla da leen di natt pour mu xool ana kan ci yéen moo gën a rafeti jëf xoolal fii aaya bi yàlla waxul li yabluwakum ayukum aksaru amala yàlla nattuwu leen pour xool kan moo gën a bëri jëf bëri fi mu nekk nii ñun lu ñu intéressé mooy ku ëpp lu mu def ku gën a bëri le waaw ku gën a bëri déedéet fekk ndir mbir mi du ko gën a bëri waaye kan moo gën a sellal nit dina bëri lu trop fekk mbir yi baaxul moo tax yàlla ci alquran ci suratul mulk waxul ayyukum aksaru amala dafa ne ayyukum ahsanu amala loolu lu muy tekki mooy axlasahu wa aswabahu mooy sellal na ko jubal na ko ñu laaj boroom xam-xam yi ñu ne leen benn boroom xam tudd Ali yaaba Ali ñu ne ko yow bàyyi Ali mooy Fudayl ibnu Iyaad mi ñu ne ko yow bàyyi Ali ma axlasahu wa aswabahu waaw nan lañ koy sellalee nan lañ koy jubalee jëf ji ñuy jëf naka la ñuy defee ba mu sell naka la ñuy defee ba mu jub qaala inna al amala ida kaana xaalisan wa lam yakun sawaabam lam yuqbal mbir jëf ji ngay jëf su sellee jubut kenn du ko nangu sell na de ay jubut kenn du ko nangu ah mu ne wa in kaana sawaaban wa lam yakun xaalisan lam yuqbal jub na waaye sellul kenn du ko jël bu njëkk bi sell na waaye jubul kenn du ko nangu bi ci tegu mooy jub na waaye sellul kenn du ko nangu kon kañ lañ koy nangu mu ne ida kaana ah sawaaban wa xaalisan bu fekkee dafa jub bu fekkee xatta yakuna xaalisan sawaaban allahu akbar ba mu sell daal di jub fal xaalisu ma kaana lillah wa sawaabu ma kaana ala sunna dégg nga de gis nga ni mu grawee léegi nag yow ñaari problème nga am nee nañ la sa jëf ji ngay jëf bu sellul jubul kenn du ko nangu bu sellee jubul kenn du ko nangu bu jubee sellul kenn du ko nangu kon léegi yow xam nga léegi say mbir lu tax ñu koy nangu mooy lan sell ak njub mu ne sell mooy lan sell bi nooy def ba mu sell nga jox ko yàlla kese jub bi nooy def mooy nga toppandoo ko yonent bi nga teg ko ci sunna jeex na kon nag ci ñun tey képp koo xam ne say jëf kenn nangu ko yow yaa tax kenn nangu ko yaa tax kenn nangu ko ndax nee nañ la bu sellee jub ñu nangu ko bu sellee mooy nga jox ko yàlla bu jibee mooy nga jëlee ko ci yonent bi jeex na kon jox nañ la yoon wi yow yaa ci des wa fil hadis من الفوائد شفاع شفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمتي ونصحه لهم أن الرياء أخوف على الصالحين من فتنة مسيح الدجال ñoo na ci hadis hadis bi ñu doon jàng sànq nee na bokk na ci njëriñu hadis bi ñeewa ñeewantal shafaqa xalifa shafaqatu mooy ñeewant ñeewant nabi yonent bi dafa ñeewant xeet wi ala ummati xeet wi lan mooy ñeewant mooy daf leen a yërëm daf leen a bëgg yonent bi dafa bëgg nun nëpp ñu dugg aljanna moo tax mu ne leen moom yonent sallallahu alayhi wa sallam mu laaye leen biir wa nasaxu lahum mu laaye leen biir ne leen mooy tandiku leen ngistal mooy tandiku leen bokkaale bu nëpp wa anna riya naka ngistal gii ma leen di tere axwafu moom la gën a ragal moom lañ gën a ragal ala saalihiina min fitnati masih dajjal nit ñu baax ña ñi ragaloon yàlla nit ñu baax ña sahaaba yaag da cay aju bokkaale bu ndaw la ñu gën a ragal ak masihi dajjal te xooleen masihi dajjal nu mu garaawee borom xam-xam yi nee nañ bu ñëwee day naan géej gi def montagne yi or ak xaalis waaw kooku garaaw na de terewul yeneen bokkaale bii la gën a ragal ak waa jooju day tubbiloo nit ñi di leen def ay yéeféer kooku li muy dangereux dangereux ndekk bokkaale bii ñuy def moo gën a bon moo tax yeneen ne moom laa gën a ragal ci yéen fa ida kaana annabiyu sala allahu alayhi wa sallam yaxaafu ala saadaati al awliya maa quwati imaanihim wa ilmihim fa gayruhum min man huwa duunahu bi adaf nee na bu fekkee sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam sang ya ak awliya yi ah seen ngëm yàlla ni mu dëgëree wala sahaaba yi ñi yonent bi doon wax hadis bi ban jamono la woon septième siècle xayrun naas ñoo ñoo gën ci nit ñi ñoom Aboubacar ñoom Umar ñoom Ousmane ñoom Ali nit ñu baax ñooñu la yonent bi ne yéen a ngi nii bokkaale gu ndaw gi laa gën a ragal ci yéen ak masihi dajjal kon ñun nag kon ñun fu ñu jëm ndax hadis yi ñuy dund tey yonent ba mu koy jàngale ñam ko ñam ko doon jàngal ba ñun ñu jot ci mooy ñooñu ñooñu nag la yonent bi jàkkaarloo naan leen yéen ña ngi nii bokkaale gu ndaw gi laa gën a ragal ci yéen ak masihi dajjal allahu akbar mu ne fa gayruhum min man huwa dunahum bi adaaf awla bil xawfi min ashirki al asgar wa akbar wa akbarihi su fekkee ne ñooñu la kon ñeneen ñu dul ñooñu nga xam ne ñoo gën a lot ñooñu day ñoo gën a yay ci ñu ragal bokkaale gu ndaw gi ak bokkaale gu mag gi leen yàlla subhanahu wa taala di mooy tandikuloo mbokk yi boroom xam-xam bi nee na dars bi ñu doon jàng mooy riya nga xam ne dafay jeex tey li ci nekk ci ay masail mooy juróom benn bu njëkk tafsiru ayatul kahfi firi gëm ñu fiñil firil ca njëlbeenu dars bi njëlbeenu bind ba suratul kahf aaya ba fa nekk ayatul kahf ñaareel al amrul azim fi raddi al amali saalih ida daxalahu shay'un li gayrillah bokk na ci liñ war a jàng fas ko xam ko gëm ko te di ko dund mooy mbir mu réy mi nga xam ne day tax yàlla delloo sa jëf jëf ju baax ji nga def te yàlla nee na du ma la ko nangul lu tax ndax isa daxalahu shay'un li gayrillah ndax da nga cee boole keneen ku dul yàlla mooy mbir mi li muy baax baax baax du ma la ko nangul ndax da nga cee boole keneen wallahi keroog joxoon naa leen benn misaal ma ne tey kenn ci ñun su wàccoon këram fekk soxnaam defal ko ginaar gu rëy gu ponkale mu def ci mbooleem luy neexal ginaar ah waaye mu ne ko yaag waa ji yaag sama far bi yéenay reerandoo kan ci ñun toog fii am soxna mooy reer ginaar googu mbokk yi ah sa ginaar sa soxna toggal la ginaar gu rëy ba pare nga ñëw mu woo beneen waay nga ñëw toog mu ne la waaw waaw kii sama far la yéen ñaar yéen a koy yow yéen laa ko boole yaa ngi moom laa ko boole ah bul ko lekk bàyyi ko waaw keroog di nga reer daa ginaar gi neex na de lépp a ngi ci est-ce que di nga reer ah lu tax reeroo lu tax duñu reer gars yi ah léegi nag yow nga bëgg a jël benn jaamu yàlla ne da ngay boole yàlla ak benn mbindeef moo xam ne yàllaa ko bind yàllaa ko moom nga bëgg a jël yëkkati waa ji ba tollale koog yàlla li nga war a defal yàlla nga ne da nga ciy sédd waa ji kon yàlla du la ko nangul moo tax mbir lu mu rëy rëy rëy rëy rëy su baaxee boo ci boolee keneen ku dul yàlla yàlla du la ko nangul ñetteel bi mooy zikru sabab al mujibi li zalik wa huwa kama qaala wa huwa kamaalul ghina nee na ñetteel bi mooy wax sabab bi waral loolu zikru sabab al mujib li zalik sabab wax sabab bi tax yàlla du nangu sa jëf waaw wala wax sabab bi nga xam ne mooy tax yàlla nangu sa jëf su manqué yàlla du ko nangu su matee mu nangu ko wa huwa kamaalul ghina mooy yàlla moom dafa mat te ku doylu la yàlla dafa doylu soo nee da nga koy boole keneen wala leneen mu bàyyi la ak moom ab la la lool ñeenteel anna min asbaab annahu taala xayru shuraka sunu borom bokk na ci sabab yi mu ne borom bi tabaraka wa taala kii nga koy booleel yàlla du moroomam da nga ko koy dendale moo tax du ko jël waaw moo tax du ko nangu mukk da lay baag moom ndax la nga bëgg a booleeg yàlla yàlla gën loolu moo tax mu ne la xayru suraka juróomeel xawfu nabi ala ashaabihi min aduya yonent bi dafa ragaloon ci sahaaba yi ngistal kon ñun nag su fekkee yonent bi ngistal la ragaloon ca sahaaba ya ñooñu nga xam ne ñoo gën ci nit ñi yonent bi ragal ci ñoom ngistal kon ñun fu ñu jëm juróom benneel annahu fassara zalika bi an yusalli almaru lillah lakin yuzayyinuha lima yara min nazri rajuli ilayhi nee na firil nañu lan mooy ngistal nee na doomu aadamaa ngi nii day julli benn nit a ngi nii koo xam ne day julli ngir yàlla waaye ba mu jàppee këram ngir yàlla génn këram ngir yàlla dugg ci jàkk ji ngir yàlla ba mu xuusee sàppa yi taxaw ci kanam rek ba kàbbar rek xelam ne ko xoolal diw mu ngi nii won ko ne yaa ko dàq julli rek mu concentré wu commencé julli julli gu doy waar gu dal gu teey gu baax yonent bi nee na loolu moom mooy ngistal loolu moom mooy bokkaale bu ndaw waaw nee na fastara zalika firil nañu loolu bi an yusalli al mar'a lillah nit dana julli ngir yàlla lakin waaye ba mu nee day julli yuzayyinuha mu taaral julli gi lu tax mu taaral ko lima yara min naziri rajulin ilay ndax dafa gis kenn di ko xool dafa gis ku ko bàyyi xel ba mu gisee ku ko bàyyi xel rek na mu ko buggoon defee mu changé ko defee ko neneen yàlla nee na kooku ngistal na ma kooku bokkaale na ma bokkaale bu ndaw waaye banaa ko ak loolu manit loolu mooy sunu jeexitalu bunt baabu riya su ma amee ay njuumte ñu ngi koy jégglu sunu boroom asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bu fekkee am na ay laaj